salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal ñu am mbégte dalal fii ci Sénégal ci si Gaston Mbengue ñu fas yéene waxtaanee actualité nationale surtout politique bi nga xam ne saa su ne dafay yëngal réew mi te saa yu ci waree wax rek hmm. <laughs> ñu ko pour en tout mu joxe son point de vue euh, ci yi nga xam ne dafay en tout la vie politique nationale monsieur Mbengue ñooy lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay fay Kandé namoon naa la trop. di ziar di ziar waa Sénégal yëpp ziar réew mi. Euh, waaw tey du ñu sori dañuy accélérer dañuy dem euh, <laughs> droit au but. Euh, dëgg nañ la yow sa xarit. kii di Malick Gakou. ci Aïssatou Diop Fall li nga fa waxee nag xam nga xaw na xaw na metti de. Hmm. xam nga Sénégal li tax mu metti dafa bari naafeq bari ay bojo bojo bu ñu defee réew noonu lañ koy jile da ngay nax seen bopp da ngay ay nit yu mat nit mais du ay euh, prostitution wala ay corruption la ñuy jële réew man politique bu ma duma politicien jéemumaa jël réew duma politicien mais dëgg fu ma fekk dama koy wax Malick Gakou sama rakk la jaar nañ fu ne sama rakk la mais sama doom sax su defee lu mu la def loo xam ne mën naa taal réew mi wala mën naa sànq réew mi dama koy dama koy dénoncé Malick Gakou du ñu toog 15 jours yunu ñu waxul li ma xam ci moom militant yooyu xamuñ ko ci moom li ma seq moom militant yooyu sequnu ko moom ndax sama rakk moom xam na loolu man xam naa loolu même le président Macky Sall xam na loolu ndax suma ma ko su ma gisee toujours mais an sa rakk bi hmm. donc man li ma dul man gas ko te yàgg naa ci avertir Malick ñun rek en tête à tête du ma wax lépp parce que su ma waxoon lépp sax dëkk bi tas. ci Malick Gakou. ci pas ci Malick ci. Euh, ci lépp li ma xam. su waxoon lépp dëkk bi tas li may waxanteeg moom bari na li may waxanteeg moom bari na. Hmm. fan yee rek waxante nu man ak moom ci téléphone mu fuite ñu bëri ñëw ni ma moom moo ko def. lan ngeen waxante woon. lan waxante woon xam na ko xam naa ko mu fuite. su ko dégloo dana xam li ma ko wax ba woo ko mu ni ma non xam nga dan may déglu wóolu dan ma dama nekk coûte lu de table d'écoute mooy sous écoute quoi waaw voilà moo ko wax waxu ko c'est pas mon problème man je sais assumer man kenn naalu kenn nenu ma mais moo biir néeg la woon pardon ki may wax dafa am importance foog faut nga déglu pour ma expliquer wu ndax yaa ne ma dañuy dem droit au but mhm. li wax lu ci ay mali Gakou sama rak la j'ai tout fait pour mu rapprocher wu ak pouvoir parce que moom itam moom may wax ni Macky Sall frère la xaritama mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. comme yan par exemple. mais seen relation seen relation mais li ma la accepter mooy su ma toogee moom mu wax lii ëllëg mu génn ci presse bi. yekk lu ne Macky Sall man day mel ni man li may wax ma su ma demee ci Macky Sall di defar pour digganteem ak Malick Gakou tax mu génn moom du yekk ma ma Macky lu ne day mel ni man naa feq la ci du ma kenn mënoon jaraloo ma nekk naa feq est ce que gënoo yàq kon gënoo créer écart. non non non am écart moo gën am na loo xam ne parce que jouer baaxul dans la vie il faut être digne man xam naa sama juddu xam naa fu ma juddoo. xam naa xam naa ban ci ban sax kii laa bokk askan laa bokk ñii nëbb seen askan man bokkuma ci xam naa fu ma toll xam naa nu ma mel gis dégg naa sax parce que man du liir yooyu. maa Gakou nee na porte plainte de moom. tax naa egg si foofu dégg naa léeg-léeg ñu téléphone ne ma mais ñii ngi def statut ñii ngi def lii man xam bañ naa ko man du ma xool statut du ma xool internet du xool dara parce que réew moo xam ne su neexee nit ñi ñu yekk lu ne yonent bi. su neexee nit ñi ñu yekk lu leen neex xalif généraux neexee nit ñi ñu leen neex procureur wala doyen des juges wala commissaire wala président de la république kooku man bañuma ku ma yekk dara man simple Gaston mu tuuti nii nan wax lu leen neex mais nag lu nar a taal réew mi dinaa ko dénoncé du ko def du ma seetaan ñu bëgg nax nit ñi ci xel bojo bojo yi toog nag di wër di saaga ak topp ko ak di wax ñooñu seen ndey dafa liggéeyul xëy na mais Malick Gakou woowu la bi nga waxee loolu. démb ba tey mi ngi may woo jëluma ko démb ba tey mi ngi may woo jëluma ko parce que dafa yoo xam ni ma nekkuma dans ça nekkuma dans des combines. comme nee na dana porter plainte suba moom nga wax. moom ay combines la nekk. non man maa man laa wax dama ne man nekkuma dans des combines. mais jàpp nga ne comportement wu Malick Gakou. c'est pas c'est son problème man daal nekkuma dans des combines. lu mu nekk affaire am la. mais li ma wax dama ko gëm wax ko nee nañu sax damaa bokkoon grand parti man mosuma bokk grand parti mosuma bokk sax parti socialiste sama për mosuma bokk APR gi bokk ma fenn moi je tiens à ma sama rakk la nag ma côtoyé ko mu côtoyé ma te da ngeen di doxalante nii mais sama rakk la Malick yéen ma ko yéene lu ne dama ko daan wax ma ko daan wax ni ko yow bis ma Macky Sall jógee vraiment tey ñi fi nekk sax man yow nga ñëw moo ma gënal parce que yaay sama rakk mais bu mu la woowee waroon nga ko affaire téesante yaay wax yëpp parce que maa ko wax assumé naa dama koy assumé j'assume mes propos moom day wax rek. ñemewu wax ñemewu ko def na plainte. Hmm. na plainte. loolu assurance la man li ma xam bari na na plainte. du plainte mukk ci àdduna gars yi dañuy brandir plainte rek di wax te gis nga nit ñi Sénégal nan yiw nan yéene Sénégal jàmm il faut pas qu'on des opportunistes man Louga laa jógee ñaari ginaar laa fi wàccee ak bu gerte je me suis décarcassé dans vie ba mel ni ma mel ci kattanu yàlla ak sama liggéeyu ndey. mais dafa mel ni daa am loo xamal Malick Gakou de. non non non xam nga xam nga damay wax ci beneen tournure soo ma dogee da ngay yàq sama allure Malick ko xamal na ma xamal na ndegam loolu rek nga bëgg a dégg mais la ma ko xamal du ma ko divulgué ci marché la ma xamal su ko neexee moom na ko divulgué mais man dama lay xamal ne la moi je me suis fait tout seul yaakaaruma ci kenn liggéey laa xam je suis quitte avec ma conscience bojo bojo yi koy topp ak di ko bind ak di wax ay ay jigéen ñoo xam ne aussi vraiment ñu ko ñu wuti jëkkër wala ñu dem defi leneen ñu nekk àddina bu leen ko jaral il faut que ñu garder seen dignité ñi nga xam ne aussi danoo nekk ak ñu du moom rek parce que man Malick Gakou je l'aime bien à part loolu muy def parce que ñoom lu ñuy bañee ñoom ñuy accepté Malick Gakou di critiquer le président de la République te duñu nangu keneen koo critiquer moom ci moom nekkagul président de la di wax dañu yàq seen yoon mais soo bañee couleur critique bul critiquer kenn hmm. réew mi léegi ku ne lu neex wax ku ne ñu taxaw pour bëgg a taal réew mi defa ni addina bu tas marché bu tas la ku nekk a ngi wax deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre yàlla rek a xam keneen xamul. Mhm. yàlla rek a xam même dégg naa bërki démb nouveau nouveau partisan man ni ma ko respecté woon bu Pastef bi nguuram bu dégg naa tey Aïssatou Diop Fall ko ci kawam dégg naa ni du constitutionnaliste mais man gëm naa Aïssatou Diop Fall parce que am na yeneen yoo xam ni dafa rafetul du dignité yow ngay xeex depuis des années di défendre ñëpp defe da ngaa neutre. xëy rek bi mu xëy dem fee ba pare di jéem a justifier am na yoo xam ni kenn mënu ko justifier. gis nga ce peuple la on pour tromper les gens quelque temps mais pas tout le temps ku mel ni ñoom Alioune Tine mais fu nu toj lan lan def ci dëkk bi ban héritage la ñuy bàyyil suñu doom yi. ku ci nekk jóg di wax ay droits de l'homme ay nangam nangam ak tel tel tel di amee seen i organisation dóor ah, Alioune Tine a pris part à de grands combats non non non ban combat waxal ma ci waxal ma ci ban non non non pardon du départ de Wade de Wade que waay yow xam nga toog di wax Wade dafa waroon dem dem na Macky Sall su waree dem day dem bu nu nekk di nekk ak yooyu ay genre door la am na ay organisation yoo xam ni ay organisation dóor la ñoom it nan ma porté ay door la rek taxaw bëgg a taal réew du ñoom ñooy dicté Macky Sall ce qu'il doit faire léeg-léeg ñu ni ñi bëgg ñiy wax Macky Sall lii wax man Macky Sall waxuma ko dara ñu koy wax lii dama bëgg a taal réew mi man danaa am li ma am ci réew mi ba pare ko jéem a taal. mais Goudomp bu nekkul constitutionnaliste xanaa euh, les constitutionnalistes dinañu jël seen responsabilité. ah waaw ci yoon man keroog bërki démb bi ma déggee ay euh, Aïssatou Diop Fall wax dama ne nag lii daanaka presque moom docteur boobu ñu fi jàppoon ki doon pikir nit ñi ak di opéré. yow docteur ñoo yem usurpation de fonction lañ koy tuddee xaw ma ne dëgg la am de façon ay Diop Fall wax na ko ci TFM info matin weddu ñeneen ñi ciy des it di joxe ay mos ay leçon de morale nekk ay donneur de leçon ca kenn mokkul ci sa leçon bëgg a taal réew mi bëgg a imposer lu Macky Sall ñoom ñooy imposer Macky Sall. léegi léegi waa Saxaret nag Mimi Touré nag ci. non sama rakk la sama sœur la vraiment li mu def neexuma. xam na ko wax naa ko ko woo nga ko waxtaan ngeen mais Mimi Touré c'est mon associé c'était mon associé mais loolu sama associé parce que man ko bàyyi Macky Sall mais ni mu def parce que Sénégal dañuy dañ dañ lay jëndloo fas yu yaabir duñ la gubli dañuy fekk bëtam di metti ba mu jël tuufaay yi ñu taf bët yi ñu koy jëndloo biir cinéma pour mu seetaan cinéma ah mais mais kat am na base non non non non non dama ni hmm. base am moo doon Macky ah waaw base am moo doon Macky Sall fii kenn amu fi base ay ay nit lay wër bëgg a lekk sa alal sengoor rek a fi amoon base Senghor jógee fi Abdou Diouf jël base bi Abdou Diouf jógee fi Abdoulaye Wade jël base bi Abdoulaye Wade jógee fi Macky Sall ñëw base bi kay remplacer yàlla rek ko xam su boobaay muy jël base bi yeneen i parti nokk toog nekk di wëndeeloog di taxawaaloog di. mais mooy yëngal fu mu toll nii pouvoir bi de. non non non non non non bu ma wax loolu ma bëgg la wax parce que mënoo ma poussé ci ma wax Mimi Touré lu ma warul a wax sama sœur li mu def man neexuma su ma say ci li may ñaan yàlla xëy na mën naa am xëy na mënula am mais yàlla dara tewu ko mu jubóo frère parce que Mimi je sais ban fu mu toll woon ci Macky Sall ndax dañ ci daan waxante. troisième mandat bi yaa ngi ciy jàpp ba léegi. Euh, posture bi nga ci am moom nga ci am ba moom laa ci am su fekkee nii. ak troisième mandat mooy lan troisième mandat réew mi tey Macky Sall daan moo daan sollicité réew mi pour ñu woteel ko su réew mi taxawee ni président doo fi jógee. dañoo bëgg nga toog mu laaj conseil ñu ni ko mën ngaa toog day solliciter troisième mandat ñëpp jàppale ko it le Sénégal de ñëpp koy jàppale parce que li xew fii ñii li ñu defe moo nekk léeg-léeg juróom-ñaari nit wër la wala benn kaar wala ay nit wër la bëgg a lekk sa ñuy wax yow la yow ñoom parce que nag il faut qu'on soit il faut qu'on pas égoïste il faut qu'on soit man liggéeyuma man waxuma sama coow yi c'est pas pour man man li ma dund dootuma ko dund ñi fi nekkee xëccoo ñëpp li dund dootuma ko dund Macky Sall li muy liggéey c'est pour l'avenir c'est pour nos petits enfants ñooñ ñoo koy jariñoo mais taxaw parce que dégg nañu pétrole ak gaz ak euh, suuf suuf bari si fi nekk ñu taxaw ñu dañ koy dañ koy bëgg a saax saaxee. Mm, est loolu tamit yéen bëggoo leen jóge ci pouvoir bi. ah non non non mais loolu ci ci Macky Sall la génnee Macky la ñuy liggéey mais nan bàyyi ba lépp stable. mais bu mu tax loolu rek warul la tax mu bëgg a taal réew mi jaru ko et nos enfants nos petits enfants. léegi lu la boole ak euh, Serigne Mbaye Thiam tamit bi ngay. non Serigne dara Thiam dara boolewul dafa nekk parti socialiste bëgg faa yëngal bëgg faa indi c'est pas parce que Aminata Mbengue sama sœur. mais am na droit. non non non amul droit yow bala ngay am droit wax dara bul fay ay xale pour ñuy saaga Aminata wala di saaga waa parti bi. na jaar ci yoon wi quoi. na jaar ci yoon wi na dem ñu def renouvellement dem ca dëkkam ba mu la gañe mësu koo gañe ku mun la gañe sa dëkk mënoo gañe sa village nooy xëccoo parti socialiste c'est tout il faut il faut savoir dire la vérité les yeux dans les yeux ku mu neex suba nag moi je suis la Gaston Mbengue sain et sauf li may wax dafa leer awma dara lu ma ciy ragal nañ bi de moom ragaloo ko moom non man du tooñ mën naa xuloo mille fois mais du ma tooñ dëgg nag fu mu jotee dama koy wax ku bëgg a dégg dëgg gi dégg bojo bojo bu bëggul a dégg dëgg wala benn prostituée bu bëggul dégg dëgg ay saaga ñu lay jël nga nekk di topp di tabaroog di def ñu kenn xamul ak grand ko ko di sama rak grand parti moom bàyyi ko léegi di sama rak non sama rak la du la porter plainte <laughs> non plainte bi kay dama ko yàkkamti man kay lu nit miime man lu ma wax dama koy def lu nit miime na ko def <laughs> d'accord voilà waaw léegi <laughs> yow Amérique moom dañ la jàppoon non wala. man kenn du ma jàpp xam nga yooyu yëpp ci son. mu demee noonu fii laa ko doon déggee. nee nañu am Gaston ak oh. Dalle. non dama ni xam nga man ngay laaj man Amérique hôtel bu ma dëkkoon kat chef de la fa hmm? maa yóbbu woon it sama bopp président Macky Sall yóbbu woon ñu ngi may dégg man foo mënti dem man je tiens à ma personnalité nit ñi ko soo xam nit ee nga koy wooye. kon amoo fa benn problème. mais yëguñu ko sax. dama farba Senghor dama daan farba Ngom non farba Ngom yëgu ko. xam nga ñun dañuy toog fii di téléphoné suñu famille dafa lu xew Amérique fii réseau yi fii journaliste yi nee nañ lii fii naa mel leen ñu ne ñu ngi nii di dox yëguñu ko. Hmm? d' abord suñuy wax mandat d'arrêt international yoo ko nekk a lu ne international moom kay nan la jàpp foofu jarul international. kon musuñu laa jàpp musuñu la interroger gisoo benn policier. yooyu yëpp amul ay wax la. xam nga Sénégalais ñoo bëgg a suul ndaanaan Sénégal ba pare def ko benn buzz heureusement que les télévisions responsables. n'en ont pas yéen sax ngeen ci benn yoon mais erreur ngeen ci wax xam naa ne parce que vous hmm. mais dara amu fa ñun ñu ngi nii. ah man de tiitoon na. ah non parce que sa père la moo tax nga tiit. <laughs> jërëjëf lan <laughs> bul tiital bul ko tiital dara parce que man du ma tooñ. kan hmm. <laughs> dëgg nag dëgg gi Sénégalais yi bañ certains Sénégalais. fu mu jotee daa ko wax nan bàyyi le président Macky Sall mu liggéey eggagunu 2024 ñun ñëpp yàllaa nu sàkk ñun ñëpp yàllaa nu defar yàlla moom moom Sénégal moo fi tekki ko neex mais nan xalaat suñu sët yi suñu doom yi nan xalaat ëllëg bu nu seet rek intérêt wala lu war a am wala ku wax ñu ni dóorkat la man moo su ma doon dóorkat heure bi fekk na ma nekk multimilliardaire man du ma dóor xaw ma door liggéey laa xam kenn mënu la taxaw ni dóor naa ko hmm. xaw ma loolu d'accord xëy na patron parti yi ak patron de presse yooyu xëy na ñooy dóor kër yi xëy na yéen yéenay dóor kër yi mais man du ma dóor lu may lay dóor presque amul dóor ah, waaw presque ñun amuñu luñ dóoree moom xëy na xëy na ñi topp politiciens yi <laughs> ñi topp politiciens yi ñooy ñoo ñoo bëgg ñoo bëggul a liggéey bëgg a féetewoo dóor mais man man sama kër gii nga ma fekk sama ah. kër gii nga ma fekk lépp daf maa leew doom du ma dóor daf maa leew doom xaw ma loolu nga waxal ñu sax xanaa ñu fexe ñu yokkal tamit journaliste seen salaire yi comme ça su ko defee. ah waaw waaw yëpp kenn du ko man damay ñaan yàlla du journaliste yëpp adduna bi yëpp yàlla na am euh, ay possibilités yu ñu yokkale ñëpp ñëpp jëm ca kanam. <laughs> merci beaucoup Sénégal avancé. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <laughs>